sant bu baax sama sëriñ yooyu fi nekk laata ma leen di sant sax li ma war ki ma waroon njëkk sant mooy Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg loolu te wér ndax lii may tàmbali nii laata ma ci def benn jéego moom laa njëkk seeti mu jox ma ci ndigal ñaanal ma ci donc maa ngi koy sant bu baax ndax murit xamul lu dul ndigal di siyaar bu baax soxna May Baara Fadilu bi fi nekk tey tamit ànd ak ay mbagam di sant bu baax ñi nga xamante ne mooy samay mbokk di sant sama waa kër baay ñu ngi fi toog di sant sama waa kër yaay yàlla na ko fi yàlla yàggal di sant bu baax waa Mbàkke Bawol ñi nga xamante ne euh, dañoo bañoon ne ma lii ngay tàmbali dañu bëgg nga tàmbalee ko Mbàkke sa dëkku maam ma leen nag wax dëgg yàlla foofu laa bokk Mbàkke laa bokk Mbàkke mooy sama lépp omo lu dul diggante Mbàkke ak Touba waaye comme yàlla def na ne fii laa lépp fii defee lépp ci àdduna bëgg naa ñu tàmbalee ko fii rek waaye suñ jógee fii Mbàkke ñu jëm donc xam leen ne incha allahu rabbi ñu ngi ñëw Mbàkke di sant bu baax samay dëkkandoo di ci jiital délégué de quartier yi di ci jiital imaam yi sax doon jiital di ci jiital tamit euh, di ci teg sax suñu waajur yu baax yi dëkkoon fii ci koñ bi nga xamante ne ñoom ñoo ñu tettee ñoom ñoo ñu yar ba ñu am tey tawféex bii ñu am ñu ngi sant bu baax suñu waajur yi fi jógee di leen ñaanal yal na leen yara xare àjjana te bàyyi fi seen njaboot yi nga xamante ne ñoom ñoo fi des. ñi ngi sant bu baax tamit ñi nga xamante ne ñooy soxna yi nekk ci gox bi muy Fann Point Amitié muy association yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk ñëpp ku ci nekk dem nañ seeti leen. ci tàmbalee loxol jigéen ñu ngi leen di sant bu baax di sant bu baax lingeer yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk di sant waa euh, euh, faj ajo di sant euh, yan association yi bëri nañu je pense que pour bañ a juum y a plus d'une cinquantaine d'associations ci commune bi ñooñu itam dinaa def seen plaidoyer ci kanam ak tamit ay sant yoo xamante ne dinañ ko def jëmale ko ci gouvernement bi ñi ngi sant tamit bu baax ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi teew ak ñi nga xamante ne surtout politiquement ñun fi nga xamante ne foofu lañ jàpp foofu lañu bokk muy Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo ko leen fi teewal ñu ngi ciy jiital suñu mag suñu kilifa Pape Mayel Diop di nuyu bu baax ki nga xamante ne tamit moom mooy docteur Pape Malick Diop di nuyu bu baax ki nga xamante ne suñu mag Abdou Karim Fofana aussi ki nga xamante ne suñu mag la gis muy Bouna Kanté di nuyu tamit ñi nga xamante ne ñu ànd ak premier ministre yëpp ñëpp ñoom ñoo nekk ci biir parti bi kon suñu limee dañuy juum di beral nuyoo ñi nga xamante ne ñooy sama quartier adoptif mun naa ko wax parce que bëri naa fa ay xarit bëri naa fa ay am di jàmm te monsieur le premier ministre moo ko waral muy Parcelles Assainies Parcelles Assainies nag wax dëgg yàlla def nañ ma seen doom def nañ ma seen rakk di jiital ci nuyoo bi ki nga xamante ne moom Abbas Ba euh, Imam Jibril euh, Ba di nuyu ñi nga xamante ne ñëpp vraiment ñëw fi nekk ak ñoom Khadim Gadiaga di nuyu ki nga xam ne sama magu bopp la wax dëgg yàlla muy Babacar Guèye Babacar Guèye sama magu bopp la kooku du ma ko boole parcelle duma ko boole ci man duma ko boole primature sama magu bopp la moom ak Ba ñoom vraiment samay mag lañ ñu egg fu sori ci man am na ñoo xamante ne ñëw nañ te gisuma leen maa ngi ciy jéggalu waaye dinaa gestu xool kii nga xamante ne sama frère la di Wan Sow Mor Huchard euh, vraiment ñëpp ñoo xamante ne daal ñi ngi fi maa ngi leen di sant di leen nuyu di nuyu ñi nga xamante ne vraiment ñëpp teew nañu fi tey ñu ngi leen di sant bu baax kilifa fi suñu suñu papa la suñu tonton la muy tonton Baara Ndiaye ñu ngi koy nuyu bu baax moom it di ko sant di nuyu ki nga xamante ni tamit wax dëgg yàlla mooy suñu maam Bira bi nga xamante ni am ak suñu maam Pape Mor sa Ndiaye suñu limee dañuy juum sumay tante yi nga xamante ne ñu ngi fi ma kenn wax dëgg yàlla ñëpp ñëpp ñëpp nuyu naa leen dafa am loo xamante ne tey moom moo ñu fi dajale muy grande rentrée politique la ñu wax ñu woote ne dañuy bëgg a woo ñëpp suñ ne dañuy def rentrée politique nag dafa am lu ko waral li ko waral mooy dañu xalaat ne jamono jot na ñun gone yi ñun ndaw ñi ñu jóg jóg nag au niveau local mooy li njëkk si li nga xamante ne moom la ñu xalaat am benn engagement citoyen loo xamante ne ñun ñëpp ku ci nekk si ñun waruñoo seetaan ndax dafa wax dama am lu ma wax sànq nee naa am na loo xamante ne suñ ko seetaanee ñun ñëpp ñoo ñàkk te jàpp naa ne ñun ñëpp dañoo war a am donc euh, moo tax ma wootee loolu li nga xamante ne am na ba des mooy ñun fii nga xamante ne fii lañu dëkk yàgg nañu fi am yéene di ko doxal di ko doxal si ni fi li ñu yàlla may ci kàttan yàlla def suñu waajur bu góor mu jàpp ñu jàpp bu sel mu jàpp ñu jàpp bu wóor boo xamante ne fi mu ko teg du tegu ko fenn fu dul li nga xamante ne moom la amoon moom la sekkoon ak suñu waajur bu góor loolu tax na tey jii li ñu war mooy ci lu mënti nekk ñu jàppale ko loolu tax na tey jii su lu mënti dugg ñu ànd ceeg moom loolu tax na fu mu gëstoo dinañu gis ñu bëgg loolu leer waxtaan ak ñi ñuy seeti monsieur le premier ministre permettez-moi de remercier les populations de Fann Point Amitié et de dakaar parce que les quartiers environ yi fi nekk yëpp dem nañ fi waxtaan ak ñoom si suñu projet waxtaan ak ñoom si li ñu xalaat li ñu xalaat mooy que ni ñun ñii ndaw ñi dañoo war a jóg xalaat ne liy doxal dëkk bi ëllëg ci suñuy loxo la ne bu ñu kenn jaaxal bu ñu kenn jaxase bu ñu kenn réeral dafa am lu fi am damaa ñëw seeti femmes yi fi nekk ma ne leen awma xaalis seeti ndaw yi ne leen yoruma xaalis waaye nguur gi dafay joxe ay jumtukaay ay programme yoo xamante ne pour yéen la yéen a ko moom yéen jigéen yi yéen yéen ko moom yéen góor ñi suñ leen gëmloowee leneen dañ leen di nax donc li war mooy ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk ci yenn position yi ñoo nekk ci yenn station yi dañoo war a di dellu si si suñu base dañoo war a dellu si di gëstu suñu askan dañoo war a dellu si di xool li ngeen soxla ñu leen koy defal loolu moo tax ma dem seeti ku mel ni soxna Thérèse fay bu FONGIP mu ne man sa xalaat boobu ànd naa ci te dinaa la ci gunge mu ne xoolal association yi nekk sa gox dinaa leen jox enveloppe bu 30 millions mu jël enveloppe trente million millions dugal ko ci commune bi daal ne ma du ma yem foofu donc loolu ma koy leeral ñi nga xamante ne egseegul ci ñoom mooy gene FONGIP taxaw na pour association yi nekk ci commune bii nii yëpp xëy na dañ koo tàmbale ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo gënoon a jege pour le moment mais fii ci to fii ñëpp dinañ jot seen ay financement incha allah rabbi ndawuñ yi tamit wax dëgg yàlla ku ci nekk am na si loo bëgg a yëngu loolu itam elle la décidé de nous accompagner on a choisi trente jeunes yoo xamante ne dina leen ndax euh, li nga xamante ni moom programme yooyu comme li may wax su ngeen ko jëriñëwul kan moo koy jëriñëw su ngeen ko jëlul kan moo koy jël yéen yéen a ko moom donc jël leen ko ñun nag li ñu war si biir li ñu woote muy ñëpp dañu bëgg ñëpp retrouver wu autour de l'essentiel ñu bañ kenn ku ñu jaxase ñu bañ kenn ku ñu détourner l'heure n'est pas la division l'heure n'est pas à ay xeex ak xuloo ak xiirook ñaayo lu ne fàng kenn du ko jeex defe naa loolu la ñuy wax donc focus sur l'essentiel focus sur suñu avenir ñu ndaw ñi te bañ kenn ku ñu divertir aujourd'hui li may ñaax ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci mouvance bi li jot mooy ñu wane li nga xamante ne moom la fi président def teg ko fi muy ay jumtukaay pour population yi waaye ñu bañ di tontu di attardé wu ci ay détails yoo xamante ne du ñu jëmale fenn donc euh, loolu bokk na ci kàddu yi nga xamante ne amoon na solo loolu ba bëggoon ko joxe di wax ne nag ñun suñu liggéey tey lay tàmbali. tey lay tàmbali suba lay tàmbali dañoo am loo xamante ne ñi ngi ko tàmbalee dox boobu ba léegi nit ji ubbil ju seen buntu kër di adhéré si suñu projet mën naa ne premier ministre démb la ñuy dog di wax si lii may def tey tàggu naa ko nag nee naa ko damaa bëgg engagé wu politiquement ndax dafa jot mu ne ma demal bàyyi naa la loolu nag wóolu moo tax mu def ko ñun monsieur le premier ministre soo nee wér ñu ne cuur soo nee ñun la de mobilisation travail de sensibilisation boo xam ni day fësal liggéeyam gën a leeral li nga xam ni mi ngi koy def ku ko bëgg rek nañu ci jàppale moo tax xaadim dinaa ñëwaat yow léegi maa ngi lay nuyu di la féliciter di la encourager di nuyu responsable yi fi teew yëpp mais bu ma ñëwee ci benn quartier fekk leen ñu ñëbbi si tey ci Sénégal nekk vice champion du monde bu relève ñibbi si tey ñu daje fi tey tombeel waral ay gaaf maa ngi lay félicité ci turu président de la République mu fekk ma may ministre des sport waaye coupe du monde moom vice champion champion moom du monde mi ngi fiy doog a ñëw incha allah dinaa ko wax président dinañu fexe bala nga xam ni war na ci yéen maanaam war na ci képp koo xam ni defaral nga réew mi sagal réew mi yëkkati réew mi li président di def ak yow incha allah dinañ ko ko yëgal te dina ko def incha allah yéen la président di bëgg a wane un exemple c'est la jeunesse ki gagne c'est la jeunesse qui progresse moo tax boo ko joxee Djibril Wade bu ñépp ràññee ci sport mënuma lu dul kontaan ci di bég ci teewaayam fii ndax Djibril Wade dafa dëkk fii ci ñaari tali man ma dëkk fii boo jéggee rek tali bi looloo tax may nuyu Serigne Oumar Serigne Oumar Mbacke Gaynde Fatma kër way juram adresse la ci rudis Serigne Moussa Diané ñu ngi koy nuyu jàppoon naa bu ma jógee fii jaar foofu waaye xat-xat yi tax na duñ fa mën nañ ko mën a def tey waaye incha allah dootul yàgg. président Djibril Wade maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa mbedd mi yëpp am naa fi benn xarit boo xam ni c'est un ancien footballeur maa moom ñu ànd liggéey lu bari muy Vincent mi ngi dëkk fii maa ngi koy dénk xale yi fi nekk Xaadim li nga wax dëgg la sa way jur bu góor Alaaji Mbay Jaay yàlla na ko yàlla yërëm moo la andi woon ci man boobu maa ngi ministère de finance ngay doog a pare jàng ma gis ci yow yar gis ci yow engagement gis yow aussi ay capacité en termes d'organisation et de communication wane nga ko fii tey moo tax chaque fois qu'il s'est agi d'organiser boo ma waxee rek dama leen ne demal parce que xam naa ni am nga ci compétence ma xam ni aussi kuy déggal say waay jur la ndax bi sa way jur làqoog léegi bariwul looy def te waxoo ma ko boo ma ko waxee it bariwul sax li ñuy toog di ci waxtaan xanaa démb lañ toog waxtaan bi ma déggee lii nga xam ni yaa ngi koy organise ak ampleur bi nga xam ni jëloon na ko ma lay féliciter bu baax ndax kuy jàppale Macky Sall man ngay jàppale kuy liggéeyal Macky Sall man ngay liggéeyal moo tax bi ñu toogee démb ma ne la dama bëggoon mouvement ak lépp ñëpp nga boole ko ci biir Benno Bokk Yaakaar nga ne ma nangu nga ko dem ci yokk beneen nag tey ci biir APR laa bëgg dugal ko tu es un homme engagé mais président Macky Sall dafa doon koo xamante ni la nga xam ni tey mi ngi koy defar réew mi ñu mën ko seede la nga xam ni am na ko yéene ñu xam ko jàppale ko warul am sikki sàkk boo koy jàppale li gën a sacré ci moom tey jii ci wàllu politique Benno Bokk Yaakaar la mais ci biir loolu li ci gën a sacré mooy alliance pour la république moo tax ku sës ci man boo koy jàppale duma la bàyyi fekk dugaluma ci biir alliance pour la république bu boobaa nag dinaa la jàppale man mii jàppale bu mat sëkk parce que ba tey des na moo tax ma woo Karim woo Pape Mayel woo docteur Malick Diop woo Bouna Kanté mane la pour le volet Benno Bokk Yaakaar bàyyi naa koog Malick Diop pour le volet Alliance pour la République bàyyi nañ ko ak Karim Fofana ak Pape Mayer dama bëgg nga ànd ak ñoom ñuy say mag tette la jàppale la def ko sans calcul def ko avec engagement def ko avec détermination ne perdra pas donc Khadim Karim sama objectif mooy bépp njabootu Macky Sall yëpp ànd bokk nañ du ñàkk mën nañoo werante tey tey ji c'est le combat mooy sunu dénominateur commun nañ ci sans calcul sans réserve def ko Rufisque def ko Mbacké def ko fépp ci Sénégal foo xamante ni am nga fa ay. les outils yi président de la République def pour jàppale askan wi moo tax nga def lu mu projet bi dox ñu ñëw dugg ci gox bi en dehors de tout contexte politique ñu jàppale ñi ko soxla ñëpp loolu la président bi demal DR outil la boo xam ne aussi président moo ko fi teg muy financé jigéen ñi ak xale yi. xëyu ndaw bi Pape Malick devait être là pour jàppale xale yi utal leen liggéey incha allah Dakar dina ci am wàll nag te le 6 bii di ñëw dana am luñ wu xëyu mais aussi les perspectives xëyu ndaw yi ak la nga xam ni président bëggal na ko xëyu ndaw yi notamment dans la région de Dakar plus particulièrement fii ci biir département de Dakar le six kon maa ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp di leen sant di leen gërëm di leen fàttali léegi bindu mi jeex

xaadim góorgóorlu ci dugub sa mbokk yi fi nekk veilleel à ce ñoom ñëpp ni ñoom ñëpp ñu am ay carte électeur am na lu ma la wax démb APR dafa nekk ci ay renouvellement ñuy monter ay comité li fi nekk fii lu mu tuuti tuuti tey li ma fi war na man gàtt gàtt cinquante comités maanaam bëgg naa nga bind leen créer say comité taxaw cër yi am payé jox bu boobaa dañ ko mën a déclarer en légitimité kenn du ci mën dara boo gisee ma tax ci yoon ko yéene jàpp yéene jàpp mooy nga ne ko affaire bi damay def kat ba nga ma mën ma gis di ma sago dama bëgg nga jaar ci tànk yooyu yàlla seede ne loolu laay wax kat bés bu nekk loolu laay wax Pape Mayel bés bu nekk ndax yéen xaj ngeen ci yéen ñëpp war ngeen mën a am te bu ngeen bokkee day bokk baay ku nekk dina am te bu boobaa Sicap Rudis amitié franco lay jëriñ gis nañu ñu ngeen sonnee askan bi loolu la président bi nekk benn demoon na la dégg bi ma ñëwee dafa wax loolu laay wax la ma lay wax ci biir loolu laa lay wax ci biti la ma lay wax ci biir bu ma la ko mën a lay wax ci biti damay préférer noppi ci biir comme ça doo ne wax na ma li ci biir wax na ma ci biir ana carte voilà xale bi la carte jox ko baa ngi nii yëkkati ko madame Diakhaté waaw mi wax mi ngi ne baa ngi nii bii mooy carte bi nit ñi jar a wut lii laa ko nii kon commencé yëpp lii mooy li ma la mooy ñi nga àndal ñëpp boole leen ci biir li nga xam ni man ci laa nekk nekk nag mooy maa ngi biir benn bokk yaa la ma nekk mooy maa ngi biir alliance pour la république la ma nekk mooy maa ngi ci ginnaaw président Macky Sall tey maa ngi leen di sant di leen